daje bii de li ko waral tey mooy yàlla dafa dogal le vingt neuf mai bi passé ñu daje Grand Théâtre cinq départements yi nekk ci région de Dakar ñu composé cent marché ñu tegoon benn comité bi ñuy wax union nationale du comité entreprise du Sénégal muy délégué de marchés yi cinq départements yi marché yi ci nekk muy délégué yi ndax bu ñuy wax commerce ñooñu ñooy baas ba fa ñooy détaillé fa la ñu ne te képp ku yor sa sio wala sa yor léget di luggi nduggi ca foofa ngay dem ñooñu ñoo daje woon doon teg benn kuréel boo xamante ni amoon na fi depuis Senghor Abdou juuf ba ci Abdoulaye Wade la faye woon ñu ñëw nag pour suqaliwaat ko muy commerçant yi ak commerçante yi teg kuréel am seen autonome bopp di wax ci seen tur te kenn dootu leen waxal fas yéene lu jëmale seen marché seeni marché kanam ak seen commerce te jënd ak jaay lu ko jëmale kanam mooy kuréel gi waaye tey nag biñ ko tegee dañoo ñëw ci département Dakar fekk si fi euh, président Baye Sam muy président département Dakar nekk ni sama càmmoñ di président di délégué général bu marché Sandaga moom ak bureau di vice présidente Aïssatou Massali ak Baye Li ak secrétaire général Diogoy ak porte parole euh, li euh, Aline Badara Cissé ak membre de bureau yëpp ñu fekk si leen pour ñoom seen marché yi nga xamante dañu nekk ci département Dakar ñenn ñi bokkoon ci comité de entreprise ñenn ñi suñ borom dogal na bokkuñu woon waaye deux mois quelques yi ñu def gis nañu yaakaar nañu ni bu ñu ñëwee bokk ci kuréel googu dina bokk ci li jëmalee commerce kanam ñoom tamit ñu ñëwoon ñun bureau comité de entreprise région de Dakar ñëwoon daje si ak ñoom pour fédérer leen ñu doon benn pour fas yéene koo tasaare si quatorze raison yi quarante cinq départements yi loolu moo doonoon suñu tànk fi fi ñu may toog di wax ak yow ñetti département ñetti région ñu ngi ñuy xaar waa région de Diourbel ñu ngi ñuy xaar région de Thiès ñu ngi ñuy xaar région Ndar ñu ngi ñuy xaar euh, ñu ngi ñuy xaar pour ñu ñëw fa li ñu def ci région Dakar muy cinq départements yi boole leen teg benn comité teg bureau national département raison yooyu ñu ngi ñuy xaar suñu fi jógee màggal incha allahu rabbi di ngeen ñu gis ci ay tournée ci région yu bokkul département yu bokkul ñu fas yéene teg union boo xamante ni lépp ku waxati ci commerce da nga ñu ci boole parce que marché yi nekk ci Sénégal daal lañ fas yéene boole leen ñu doon benn ñu teg ay comité ba bu ëllëgee lu état di defati wala mu di ko waxati euh, ñu mën ñu ci boole ndax euh, ñun dañu nekk nit ñoo xamante ni amuñu bàjjen parce que bu ngeen seetaanee fan yi ci réew mi Euh, soble bi xaw na manqué mais boo déggee ñu ne commerçant yi la ci télé yi bu ñu toogee dañuy wax ni commerçant yi la importateur bi doo ko wax te yaakaar naa état buy subventionné du subventionné euh, commerçant bi wala commerçante bi kii importe di dem di jëli di ñëw kooku lay subventionné te ñu gis ni ñi nga xamante ñooy importé ji muy soble bi muy ceeb bi muy tamaate bi muy suukar bi wala déwlin bi ñooñu état da leen di subventionné mais li état xamut mooy ñooñu muy subventionné ñooy dogale waat situation bi ba tax na prix bi gën a yokkut bu ma nee dogale waat situation nag day wax bu xóot yow nga yor say milliards wala nga yor say million wala ngeen am union bu am doole ngeen dem bitim réew di uti ceeb suukar tamaate déwlin ngeen importé ko mu ñëw su ngeen dikkee au lieu que ngeen jaayat ko demi grossiste bi mais yéen yéen ay amaat seen magasin ci régions yi ak département yi dem déposé ko fa yaa ko importé yaa ko déposé ci say magasin détaillékat bi nekk ci marché nga xam ne doolem bariwut capitalam ci cent mille cent cinquante mille deux cent mille la dem war a jënd saakub ceeb saakub soble saakub pomme de terre saakub suukar ba euh, bidon dëwlin bu vingt litres siop tiga dege mu war koo jënd ñëw détaillé waat ko yow miy jàkkaarloog man bu sa borom kër joxee ñeenti téeméer wala juróom benn téeméer nga waaxu dem ca marché ba moom mu war cee gis boppam yow juróom benn téeméer yooyu wala ñeenti téeméer yooyu la état situation ne bu fekkee fii ñu ci ki demoon di jëndi pour détaillé ndax yow danga nga ko mën a gis doo ko mën a gis parce que bu fekkoon ne tey li état de situation ne ci ci kiy importé bu ñëwee demi grossiste yi nga xamante ni ñooy jënd di jaay détaillkat yi ñoom it dañ koy gis bu ñu demee mu feeñ ci prix ba ñu daan jënd ñu wàññi leen ko yow mi ñëw di ndugg si boo dikkee dana wàññeeku ci yow ndax saako ceeb ba nga daan jëndee exemple douze mille francs bu seeree ba seer quinze mille francs tey mi ngi ci vingt deux mille et quelque loolu lépp état da ko war a xam lay tax état xam ko nag muy suñu marché yii ñu boole leen ci li ñuy def ndax bu njëkkoon président Senghor moo fi indi comité de entreprise bii ñuy dundalaat moo ne woon Alaaji Njaga Géey damaa dem France gis sa politique bu am solo te loolu dama ko bëgg a dundal fii mu ne ko lan mu ne ko comité de entreprise comité de entreprise mooy lan bu étate tey ji subventionné dara boole ci comité de entreprise tey dañuy toog ñu ne ah feeg un mois stock bi ne woon ci marché bi dina jeex bu stock bi jeexee beneen buy duggaat état subventionné na ko képp ku koy jëndati day fekk na nga yëg ko ñu wàññi ko mais loolu day fekk ñu boole ci comité de entreprise mais su fekkee boole ñu ci comité de entreprise ci suñu mbokki commerçant commerçant yi am na si ñoo xamante alal ji rek la ñu gëm moom mën nañu am seen ñemeeg yàlla goo xamante ni tey mën nañoo wàññi te wàññi ñu jël dépp ko ngir bu ñu yokkee ñoom ñu mën a yokk loolu lépp nag bu fekkee ne ñi ngi ci boole li ñuy def di ci boole délégué de marché yi délégué de marché bi di fekkee fu ñuy nase fu ñuy noccee su ëllëgee lu état wàññi mën nañ koy topp ba mu dugg ci biir marché bi te bu gëy ci biir marché bi képp ku ne ci marché bi di yokku te fekk na lii ngay yokku dañ ko subventionné wàññeeku na ba nga xamante yow ba nga koy jënd wàññeeku na bu ko rogee délégué bi mooy taxaw ne la lii du fi am bu ko rogee délégué képp koo xamante ni jàpp nañ la ci man boo ñëwee ci man du ma ak noonu la di noonu lay doxee waaye nit ñi yoruñu seen i siwo di dem ci demi grossesse yi di nduggi demuñ yoruñu seen siwo di dem ci magasin yi di nduggi ku ci yor sa siwo ci marché mi ngay dem pour nduggi ko kon nag nag ñu état xamante ni fokk mu boole délégué dem marché yi ci li muy def ndax ci marché yi ci nit ñi di nduggi ndax foofu la ñuy détaillé kenn détaillé wut ci bitig bi kenn détaillé wut ci magasin bi pour li état di def nag ñu gis ko ba yow mi yor sa 3000 francs mën cee ndugg añ ak reer comme ni mu doon amee démb fokk ñu boole ci délégué de marché yi